yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarhiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. noo ngi nuyu mbokk yu baax yu tëdd yi ci jumaa yi Sëñ ji ci weer bi ci bis bu tëdd bi. Euh, muy bis boo xam ne bisub sëñ Touba la di bisub Sanoosi di bis boo xam ne sëñ Siré dafa jóge woon sëñ bi dafa jóge woon ci tukki dem Sanoosi fekk fa benn taalibeem bu ñuy wax sëñ Siré Lo mu def fa weer mu mat di weeru koor gi weer woowee nag saa bu dellu si waxtu woowee xéewal yi ñuy def di ko defal sëriñ bi nu indi ko ci jumaa ji nga xam ne mooy barabu sëriñ bi nu fekk fi sunu mbokk yu baax yi nga xam ni dañ fay yor liggéey bu rëy di ci liggéeyal sëñ Tuubaa ñëpp am ak pay ci ñoom ñëpp am ci ñoom ngërëm ndax loo xam ni waral nga ko mën a defal sa bopp wala nga jóg di ko defal sa bopp buñ ñëwee ñun din ko defal ànd war ko ànd ak ñoom lu nu am rek war nañ ko fa indi di leen nemmeeku di leen seet si di leen siyaare buñ amee suñu yëf nu indi ko fi ndax fii lépp lu fi nit indi àgg na ci sëriñ bi leer na mu ne lu fi nit indi lu mu mën di doon ak lu mu bari bari bari bari bari bari bul ko naw xamali nit dina fi lu ko ëpp waaye nag looy am war na ko fee mën a indi xam ni bis la boo xam ne bisu sëñ Tuubaa la weeru weeru sëñ Tuubaa la ñoo fi neel sëñ Tuubaa di ko fi liggéeyal bu gan doxee ba agsi ci barab bii waxtu dog jot mu la jàdd fekk fi loo xamante ni nii boo doge woon sa kër sax doo ko fa am kon yéen ñi koy def am nañ amal nañ leen ngërëm amal nañ leen sant amal nañ leen ñaan man li laa wax lu mu am yéene naa leen ko indil leen ko fii ngir jëmmi seen Tuubaa ak nii ngeen di liggéey sëñ Tuubaa kon noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal ci barki Seexul Xadim liggéey bi yàgg ci seen loxo lool lool lool lool lool lool bi di ko seere waxtu wu ne di ko naw waxtu wu ne ci barki Seexul Xadim jërëjëf wa rahmatullahi wa barakaatu suñ fàllu ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di nuyu itam bokki yi nga seqal liggéey bi yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm te di leen siyaare ci weeru tedd wii ñaan ci seen barkey maam yu baax ya suñ borom dolli leen xéewal te dolli seen i wërsëg ngeen yàgg fi yàgg ko fee indi gis nañu nag liggéey bi liggéey bi nag tàmbaliwul tey mel na ne at yi yëpp yéen ngi koy fàggu di ko fi indi di ko indil Serigne Touba ci liggéeyam bii loolu nag dafa mel ne tàmbaliwul tey ma nga tàmbali ci diggante seen maam yu baaxee ak Cheikhul Khadim nañ ko daan defee démb ak barke démb yoon woowee rek ca ngeen jaar kon lii tey du doon kiimaan du doon it lu ñu bett ci yéen ci liggéey bi ndax ku xam taxawaayu seeni maam ci liggéeyu Serigne Touba bi xam taxawaayu seeni waajur ci liggéeyu Serigne Touba bi bu ngeen taxawee taxawaay bu mel nii du bett kenn dañuy xam ne rek la woon moo fi nekk ba léegi kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen xamal ne liggéey bi agsi na ci jumaay Serigne Touba ji danañ leen ko defal itam ci liggéeyub Serigne Touba bi joxal leen ko dongay Serigne Touba yi ñu jariñoo ko ni nga xam ne nan ngeen te bëgg ko ni di rafetlu nag def jëf ci lool ak defin wi ak saxel gi ngeen ko saxal nag nga xam ne at mu ngeen ngeen ngeen def ko mu noonu lu mucc ayib te mel ne at mu nekk day day gën a rafet di gën a baax di gën a sell loolu itam gis nañ ko ci seetlu nañ ko ci bu baax a baax a baax gis nañ ne ren it yokk na bu baax a baax ñu ngi jàppin ne mbirum Sëñ Tuubaa la rek lu mu gën di jëm kanam day gën a yokk rek incha allah taala li ñuy ñaan kay mooy yokk gi yokkoo ci seeni loxo yéen euh, ba ba fa ngeen ko bëggee ci barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci turu daayirat Muxaddamatul Xidma ak sëriñ Afiya mi ko jiite waaye ci turu xam ne mooy kilifa ak yoonu murid wépp yi nga xam ne ñoo toog sant bu baax di leen gërëm te ñaan ñu teewaat fi di ngeen déwén kenn bañ a manqué ci barke Sëriñ Tuubaa tey sunu borom defal ñu xéewal yoo xam ne kenn ku nekk li mu yéene ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi dana ko man nam ko bëggee ah, xanaa rek santaat taalibe yi nga xam ne ñoo leen ciy jàppale bu baax a baax euh, di leen xamal ne lépp lu ngeen tegoon ci loxoy kilifa yi ngir ñu liggéey ko ci liggéey bi indi ko ci barab bi loola kilifa yi defe nañ ko dem mu gën a rafete indee ko fii ci seenu tur yéen ñëpp kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm te di leen tey ñaan képp koo xam ne ab dërëmam dem na ci ak lu mu bari mu néew sun borom faj ay aajoom ci biir ak biti ci barkeb Cheikhul Khadim mi ñu koy liggéeyal jërë ngeen jëf